jërëjëf mbokk internet yi bu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel del soit ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam di ci ànd ak góor yàlla ñaankatu yàlla di nitu alquran waaye nitu diine di ko jub nag te xam naka lay ñaan yàlla di Cheikh Thierno Dieng borom Kenzoul Kimiyaaw wax dëgg yàlla di waajoo xamante ne kenn du ko laajte fii biir pro moo xam yéen sénégalais yi nekk ba bitim réew rawatina suñu mbokk Gambien yi te yàgg jëflanteeg moom. xam ngeen ko tey nag dinañu waxtaanee diggante bala Gaye de Tapha Tine waaye tey dinañu waxtaanee càngat gu doyo doyo doyawaan yow mi wut bëgg am xaalis yow mi bëgg kaaraange yow mi bëgg sàmm sa bopp ci cat yow mi bëgg kayit yow mi am problème mu ngóor yow mi bëgg a noob sa jëkkër ba mu nopp la topp la déglul émission bi bu la daa raw Cheikh Thierno Bouré nga lay ziar di la ndokkeel bàyyi la nga néew ngi lay sant. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu wa ala alihi wa ashabi ajmain wala hawla wala quwata illa billah al ali azim يا أيها المتسع أقدر لنا بهذا bi والتحت di بالنصر دي bi بظفري buur ñu ngi leen fay nuyoo waaye di nuyu mboolem ku ñuy déglu si biir réew ak bitim réew yépp ndax suñuy nuyoo duñ ko xatal si senegal rek mm. ndax fu nekk la ñu nit di siivoré ñu soppe ñu ngi fu nekk rawatina bitim réew kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa fu waaye mënta nekk rek yàlla na la fi bi fekk nga nekk si jàmm Cheikh Thierno wala wa dem na ka nga waxe mag dama nañ taali bàgg war mbaam mm. foog gël am diggante Balla Gaye 2 ak kenn mu may tafatin mm. nee nañ ma ne combat bu mystique la mm-hmm. combat bu bari ñaan yàlla waaw combat bi gannaaw seen coono yépp seen effort yépp defar seen yaram lu si des leneen la beneen mbir la beneen mbir la si mbir yi bi mm. mën naay wax ne entraînement mu ngi si de ndax loo mooy mbaaxu mbër. Hmm. waaye nag la nga xamante ni moo nekk si gannaaw entraînement da see ëpp doole. Hmm. te ragal naa ka nit ñi foog ne moo man hmm. ka nit ñi foog ne mooy daane. Ah. mbir mën nay bett loolu boobu. yuuxu mën na jëmee fu kenn foog yow te yow kenn du la wax làmb. yow yaa jëmmi làmb. waaw làmb de sama la man boobu. jeex na ñun xam-xam rek la ñuy waxee. waaye la ñuy wax si làmb yaa ñu gën a xam. waaye nag ñun xam-xam la waxee waaye daal làmb ji. làmb ji yéeme la làmb ji loo la dafa kawe dana tiital ñoo ñu bëree bëri bëri bëri daal dina mbetteel dana mbetteel mbetteel bu rëy rëy rëy loolu moom bu mu bett kenn jël moom bu mu bett kenn bu yàmm moom day bett ñëpp mm. loolu nañ ci bàyyi xel bu baax Cheikh Thierno dama fekk ngay defal cangat gu neex mm-hmm. boo xam ne sunguf yi ba nga ko boolee sax ak ruuxu nga ko doon yëngalee dëgg cangat gi li tax ñu boo xamee bant bu ñu koy yëngalee yow mag nga mm-hmm. nga xam leget mm-hmm. ndox kese nga fa fekk mu mujj di fuur mm-hmm. est-ce que alaaji góor xam nga ne alaaji buur xam nga ne jamono bii ñu toll doomu aadama yi pour ñu am il faut ñu fuural seen mbir waaw waaw seen yaram yi tilim neen gàllankoor yi bëri neen jàmbaar yaa ngi liggéey mënu ñooy am lu ñu am mu tasaaroo seen loxo lu ñu leen dig duñ si jot bu ñëwee fii dafay jeex léeg gis koo xam ne ndeysaan day sax yërëmtalu danaan sëñ buur liggéey naa ba dee aw ma dara aw ma dara dëgg la wërsëg dëgg dëgg yàlla bokkut ak mbiru liggéey dara liggéey jàmbaaru koy def wërsëg na moom leneen la ñaan yàlla moo koy def liggéey jàmbaaru koy def wërsëg ñaan yàlla moo koy def waaw dëgg la de càngat gi ni ko ko laal mu ko ren ba déwén lu ne am nga ay milliards ay milliards laa la wax bu dee place milliards nga nekk mm. laal ko ren ba deween lu ne am nga ay million ay million lu lu fekk ci place million nga nekk. Hmm. du cangu du caaxaan ñu néew ñoo koy am ci at mi. Hmm. ndax léeg-léeg nit dana ñëw soxla ko ñu xol biddéewam fekk at ma buñ ko si defalee càngat gu sa du ko arrange du ko jik hmm. dañ xool ba sa biddiw leer ñu xam ne ñu xam ne yow mi ku la defaree càngat gi nga tàkk léegi léegi léegi ñu defaral la ko. man nee naa ñaankatu yàlla balaa mën a defar càngat gu baax foogu mën a seet. foog moom xam-xamu ilmul nujum buur sëriñ bu mënta feet baal mm-hmm. waaw sëriñ bu mënta feet baal sa oto am na lu si yàqu xamoo lan la mënta daw nga yóbbu ko si mécanicien bu xam rek mooy tax mu dawaat dëgg la waaye nag dem si mécanicien boo xam day làmbatu loo yàqu la yàqu teg sa bopp mm-hmm. ñun na mbiru seet buur dañ si am xam-xam yu leer yoo xamante ni képp koo xam ne ñëw nga bëgg sa mbir tàkk nga am alal wala da ngay tukki nga bëgg kayit ba walla ngay dugg si soxla boo xam ne xamoo nan la bëgg ñu seddal la ko dañ la ko seedal ba mu leer naññi wax la lu tey wax la lu passé wax la lu suba xam-xam la boo xam ne yàlla ñu ko dénk te buñ la ko joxee benn déng déng dooru seet man damay wax ne ñu ñoo lay seedal boo wax ne bis bu nga judd waaw buñ la toppee si at di la benn bennal boo wax la bis bu nga judd boo ragalu ñu wax la bis bu ngay génn àdduna ngoro gu ngay sotti gu ngay dox xamoo doona sottim dit tukki mi nga bëgg xamoo dana sotteem déet kayit bu nga déposé xamoo dana sotteem déet alal ji ngay yóotu xamoo da nga si jotam déet lii yëpp ñu seetal la wax la sa sara nga dem defi ko am lu nga bëgg seet bu leer moom koo bëgg fii rek mën a ñëw naa leen borom Kanzul Kimya loolu nag ay code la ay la de du du mbiri <laughs> mhm. ma ñëw ba tey ci càngat mhm. wax nañ càngatu ubbeeku mhm. waaye càngatu kaaraange na dama wax nit ki ku ko ubbi te aaroo ko bu deew yaa ko rey dëgg la maanaam kaaraange dafay jiitu hubbeeku dafay mujj hubbeeku mm-hmm. kaaraange dafay jiitu hubbeeku dafay mujj hubbeeku mm-hmm. luy loolu mooy yaram boo nar a def ñun suñ taal laa wax de pour taal ni ki mu am alal mm-hmm. yaram bu ñu ko nar a def dañ la toogee ba nga xam ne ku la laal yàqu door lay jox ca ngat boobu nga laal tàkk alal ñëw ñu protéger la ba ku nara laal wala laal mu laal alal ji yàqu kon kaaraange bu wér làmmiñ dula la dugg bët du la dugg liggéey bi bon du la dugg moo xam buñ sëf la moo xam buñ takk ci kaw garab la moo xam buñ sànni la kort moo xam moo xam buñ sànni si ngelaw la moo xam bu mënta nga bëgg mucc si yoolu yëpp ñëw jël suñ kaaraange mm-hmm. ku la laal dana dee bu dee dee jubloon si loolu mm-hmm. ku la laal dana yàqu bu dee yàq la la jubloon ci loolu sans départ moom la mu yéene rek li yéene nit ki ci la mu si moom bal teg si daal lay doon lay doon mm. buy dem rek day delluwaat si kawam te bu mm. dellu si kawam kenn mënta wax ba mucc kaaraan gu mel noonu moo fi nekk. c'est-à-dire lu tax gaañi léegi mënuñu nopp. dañoo xamul dara rek. Ah, man de léeg nit na ma diw de ba ma ko joxee sama xaalis ak léegi ëpp na juróom benn weer. dem na sax ba wuyatu. dañoo xamul dara rek. Hmm. nit kalaay buur xam nga ne ku xonq nuñ koy noobee bokk de ku ñuul nuñ koy noobee. luy wute bi. ku ñuul dafa am nuñ koy noobee waxtu wuñ koy jàpp. Hmm. ku weex dafa am nuñ koy noobee aw waxtu wuñ koy jàpp. Hmm. ku njool dafa am nuñ koy noobee aw waxtu wuñ koy jàpp. ku gàtt dafa am nu ñu koy noobee ak waxtu ñu koy jàpp. Mm-hmm. tubaab bu nga xam ne du jullit dafa am nu ñu koy noobee ak waxtu ñu koy jàpp. mushrikuuna la. ku nga xam ne moom dafa gëm yàlla dafa am nu ñu koy noobee am nu ñu koy jàppee. Mm-hmm. li yem na boo ko xamoon na bëgg a nopp da nga sonn danga sonnal client bu loo doo am jàmm moom doo am jàmm ndax doo am lu mu bëgg waaye yàlla dafa bind teemalewul yàlla dafa bind teemalewul nag yow da nga bëgg a jël lépp nag naan noob noob noob di sonal sa bopp di sonal ñi li wàllu bidéo yemuñ ci wàllu wërsëg yemuñ ci wàllu tabia yemuñ ci wàllu rawxaan waa dëgg la demewu noonu hôpital ngay dem ñu xëy fukki liir juddu mhm. bàyyi bu nekk dem jël jox jox tur naa dëgg kenn bokk see sa morom tur wallaahi dëgg la kii nga dëkk ndar kii nga dëkk Kaolack kii nga dëkk barab sàngam te ñoom ñëpp si biir hôpital bi lañ juddoo léegi nag doon ngent gi nga dem ñu jox ko tur hmm. ngent gi nga dem ñu jox ko tur yow na léegi fi ñu toll ni nga ne gannaaw liiri juddoo nañ si hôpital bi yëpp ñoom ñëpp hôpital dalal jàmm a lañ juddoo ñoom ñëpp dalal jàmm rek leen déedéet demeewul noonu nag ba nga demee ne ngent gi am na yeneen tur yu ñu joxe yëpp boo ko xamut mënoon nopp nit jàpp ko est-ce que dafa mel ni Cheikh Thierno hmm. ñàkk xam-xam hmm. dafa commencé wasaare ci pays bi yàlla bi maanaam ci pinc mi boog laa bëgg a wax kaala yi rëy na grand boobu yi rëy na wax ji bari na waaye xam-xam moo tumuraanke waa xam nga dañuy wax ne kaala si bopp na njëkk si ndigg balaa bopp waaw kaala bu njëkkee si ndigg balaa bopp di ñëw mm-hmm. kaala ga day ànd ak xam-xam bi di yéeg beeg si bopp bi mm-hmm. waaye bu fekkee ne kaala da nga koo jël teg ko si kaw te ànd ta xam-xam dana wàccaat beeg si suuf mm-hmm. kon naa laa kuliyaalin kaala yi luñ bëri bëri bëri naan da xam-xam rek mën ne naa Cheikh Thierno li ko bàyyi fii ba tey macha allah ak at yi mu fi nekk yëpp du ma buuse njuba ko fi ba du ma buuse man ba ma ñëwee Dakar ba léegi fu ma dëkk laa dëkk mm-hmm. ba ma ñëwee Dakar ba léegi fu ma dëkk laa dëkk amul buuse ku ma xamoon démb tey noonu nga ma xamee mm-hmm. xam-xam ñëw ñu xool sa soxla xam ne mën nañ koy faj ñun la bisimilah moo nañ koy faj demal fu mën a fajoo rek mm-hmm. doo ñu déranger duñu la déranger soxla boo mëntaan boo ñëwee fii mu faju Mm-hmm. yow yéeneel rek. yaakaar du fi tase mu. fii yaakaar du fi tase bu. Mm-hmm. fii xam-xam moo fi am. lijaa ba moo fi am. Mm-hmm. dogu si yàlla moo fi am. war doomu aadama yi moo fi am. fii nii. wallaay bu ñu xamoon bu ñu xamoon ki boot man maa xam ki boot du ma ci duma ma ci jaar. waaye wallaay bu ñu xamoon ki la boot. Eh, eh, Cheikh Thierno ma ñëw ci wàllu eh, sànq wax nañ ci karange wax nañ ci ubbeeku. wax nañ ci cat. waaye li gën a dangereux. te xaw a nduroog mm-hmm. te bokkuñu mm-hmm. te xaw a liggéey bu bon mm-hmm. te bokkuñu muy wàllu rab mu ngi def ay ravage yu bari ci pénc da ngaa tudd lu doy waar ab saay-saay saay lu doy waar bu ma ko mën a wax sax ñu wax langage xale yi muy lu kon li tax loolu mooy rab rek moo la mën a fekk ci barab ngay jàmbaar mu def la yambar ngay góor mu def la jigéen ngay ko am fit xam lu nga bëgg mu yàqal la hmm. rab nag bàyyiwul xale bu judd dooru juddu tey hmm. bàyyiwul mag mu am téeméeraat hmm. bàyyiwul yow jigéen bu may déglu yaa ngi ne mel nu nga war a mel nekk sa kër mënoo fexe ba dégg alxayr lu la téye rab la yaa ngi liggéey day am alal yu bari weer wu nekk nga récupérer ay millions yu bëri. te doo xam fu mu la jaar waaw doo xam fu mu la jaar. billahi wala kilaam jëndoo ci. yaa ngi dajale ay jëndoo ci oto. tous jëndoo ci yërëm baax. léppay ngelaw yow da ngay mujj toog sa digg laal ne léppay ngelaw li léppay ngelaw. allahu yaa ngi bitim réew. di dajale ay conteneur boo dajale ba foog ne noonu la ren bi tasaaroo. Hmm. yaa ngi commencé tabax tabax mën a fexe ba mu yegg. Hmm. tubaab baa ngi lay jox rendi wu naan la ñëwal boo ñëwee am fi embossement boo ñëwee am fi liggéey. Hmm. boo rendi bi jotee ren la bi yàqu. lii yëpp ram moo koy def beneen bi léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay bëgg a sëy ànd ak soxnaam mm-hmm. normaan si wàllu kàttan rab ñëw yàqal ko mm-hmm. waaye na loolu yëpp na bu soobee yàlla ku ko yëg sa yaram nga dégg ma ñëwal ñu saafara loolu mm-hmm. bu dee dafay yàq sa alal dootu ko yàq bu dee daf laa tere sëy da nga sëy bu dee daf lay tere am alal danga am alal bu dee lépp loo xam ne forcé la boo dugg wala bu ñu lay yaakaar loo mu yàqu ñëwal mais gaa ñi sëy bi ñemewuñu faj rab ñi man fekk aw ma nangami at du ko faj ah waaw nangami at du ko faj dafay fekk ne xam-xam ba moo ko matewut ah. lu xam-xam matewut xaaree ko at waaw ah, waaye lu xam-xam mat matee jaru xaaree at fii rab bu fi ñëw ñu duma fii lu fi ñëw ñu rek la ko hmm. dañoo bokk da gars yi ni ñuy fajee ab biir wi rek hmm. ndax lii dañ see pare nekk ba xëy dee hmm. xëy màggat si xëy dee Mm-hmm. moo tax du loo xam ne business lañ koy def nii rek teg ko fii rek mbir yu bi am nga nga engagé la ngay engagé génn si déedéet ñu nekkuñ si loolu. Mm-hmm. natt rek la ñuy liggéeyee. kon ne képp koo xam ne rab sonal na la di la yàqal moo xam lu mu mënta dool la la yàq rek boo ñëwee fii dañ ko saafara incha allah. boo ñëwee fii danañ ko saafara incha allah Cheikh Thione di nga dugg xalwa si lañ dëkk. di ko dugal nit boromi aajo. boromi aajo dañ ko dugal xalwa fekk mu jar ko. waaw waaw du ngelaw lu ñëw rek ma dugal a xalwa de. sama mm. xalwa leneen la. boole koor ak lekk lu dagan lekk sama xel wa leneen la laal wax mm. néew na ku ma ko dugal de waaye ku ma ko dugal moom na nga tàkkata doodu fay mm. tàkkata doodu fay nag mooy yow nga tàkk du doxal sa jamono nga jógee fi sa mission continue sa njaboot mm. ku ma dem bay dugal xalwa du woon na xalwa bi loo waxee dugal waaye naa ko dugal lépp loo jur mag ñi dañ naan sampee noonu ñaari famille nga nekk nga gis tey si kër diine yi ba léegi balee mag ñi sampee ba léegi mosu ñee dëj waaw ñu ñoo fa man sax jeex na loolu xalwa moo koy def moom xalwa rek nga mën am problème bu la jaaxal ñu dugg xalwa génn ñun la jeex na jeex na mm. bu dee musiba la fay na bu dee looy yóotu la danga si jot léegi léegi léegi léegi képp koo xam ne na yaa ngi may déglu bëgg mbir gaaw bëgg sa mbir terre léegi léegi léegi nañ jox ko si mbir xalwa boobu dana fay coow dana fay coow su lu coow lu borom war a wuy ji tribunal suba te njort ni bu demee ñu tëj ko tribunal la fay dajee si doomu aadama mm-hmm. ak seen xel ak seen xam-xam dëgg dëgg yàlla boo amul matuwaay kay boo demee da nga am gàllankoor waaye nag xam-xam bu wér ñun la demal ñun ñu jiital la na la demal wuyu ji boo demee ñëwaat mm-hmm. waaw amul cool yu mën a toll ma ne cool nu mënta toll boo demee ñëwaat dara am lañ la jox nga yóbbaale te luñ la jox nga yóbbaale il faut mu fekk si luñ bàyyi fi mm-hmm. kon ke boo demee da nga ñëwaat yëf fi mag laa la wax nag dégg naa wax ñaari mbir la leen lu ñu ñoree téye fii yow mu ñu xoo ñu jox la na la yóbbul lu mu yóbbu nag ñun ala kulli àlla dana fekk si ñu téye fii te yaa ngi indiwaat lu mu la wax lu leer la de coow lu mu rëy rëy rëy boo ñëwee fii fay mu fay na nekk coow lu mu mënta doon nag moo xam sa diggantee buur la moo xam sa diggante dégg nga leneen la ba leneen li jeex waaye coow daal la ñuy wax lépp lu ñu tuddee coow boo ñëwee fii mu fay Cheikh Thierno daj dëpp gi gaa ñaa ngi jël léegi ay doom ci pharmacie yi di ko dëbb di ko boole ak sunguf di jox gaañi mm-hmm. ngir wàllu ngóor a mm-hmm. boo dee sëy daal boo ci maqee yëg sa bopp boo ci mm-hmm. pare pare ku mën a faj ngóor a daal ngóor a ngóor gu sax dëgg la gàcc la docteur bi nekk ci hôpitalam di faj wut ay garabam saytu ko ba ne lii wóor na di ko faje yow ngeen ne nit yàlla nga mm. dégg nga boo xam ne am nga cër si yàlla ngay dem di jël garabu docteur yoolu bàyyee ko docteur loolu mooy seen cër téyel sa cër yow nga liggéey liggéey liggéey nit ki mu sax si moom bii laa yomb di hmm. néew kàttan nag képp ku ko am moo xam as boo mënta am nag hmm. léeg-léeg ñuy lay naan da ngaa magee bopp déedéet man lu ma yor laa amal téeméer da ngay sëy amal da ngay sëy da am doom bi loolu turu yàlla la wala ren la turu yàlla si la bokk turu yàlla si la bokk xam-xamu tegtal si la bokk lépp si la bokk te lu ma lay wax nii nag man amaguma téeméeraat bu ma ko waxee man nga may wedd yow mu may déglu mm-hmm. waaye fa mu ko jëlee borom moo am téeméeraat mu ngi ngénte ba léegi mm-hmm. kon wax day leer mm-hmm. fa mu ko jëlee borom am na téeméeraat laa wax yu teg ay weer te mu ngi ngénte ba léegi boo bëggee ñu jàpp sa loxo dem ba si paa ba ñu woon la ko mu waxee yow direct waaye xam-xam ñun fu nekk lañ koy jëlee am na si loo xam ne turi yàlla la bu ñu la ko defalee turi yàlla boobu du dee mukk day continuer du dund yow tamit da ngay continuer sa kàttan du dund du dee mukk ñàkk kàttan yëpp dee la rek xawra bu dee la rek. loolu kese la wallaay. beneen bi am na loo xam ne ñu ngi koy liggéey si sakkar munat. Mm-hmm. képp koo xam ne takk nga si ndigg amal téeméeri at da ngay continuer di am njaboot. Mm-hmm. est-ce xam nga lu ñu mënaat anu mën a sëy. wallaay mënaat mag nga kenn du la ko wax. Mm-hmm. te séeréer nga su mu juumut. beneen bi mooy garab yaa ngi fi. garab yu nga xam ne nag ren sunguf la. gàncax gi gàncax gi nga xam ne yàllaa ko jëmbatal boppam. ba mu koy jëmbat yow yëgoo. ba muy jël secret bi di def si garab gi yow yëgoo mm. ba garab gi di màgg yow yëgoo yàlla def si garab goo mbóot xamal ñu ko ñu dem jëli ko boo ko jëfandikoo am garab mm-hmm. bu fekkee ne yow garab goo moo lay faj moom moo lay faj mm. bu dee tur yàlla ba moo lay faj moo lay faj bu dee sakara munaat bi la moo lay faj ne kàttan mu ñun sens boo si ñëwee sens boo ñu si ñëwee rek mm. ñu dimbali la sens boo ci ñëwee ñu dimbali la daf mel liñ tëraloon ci waxtu jeex na sëriñ bi ngay waaj bésub alquran bu mag mm-hmm. defe naa le trois la bu ma juumul le 3 août di wane Cheikh it itte ji mu jox alquran ak di ko jàng ak di ko jàngale ak di ko def ci ay dënni xale di wane rek sa taxawaay ci diine ak ci alquran alhamdulilah dangaa baax trop am itte itam ba fu ñu woote mbaax ñeneen naa dem jëli ko pour feeñal ko jotaay boobu insha allah ñi nga woo jaamu yàlla yëpp le trois août si jotaay boo xam ne jotaay yàlla la jotaay ñooñ yàlla la jotaay xam-xam la jotaay alquran la jotaay ñaan yàlla la fu si waaye mënta nekk boo teewee wala nga teewlu mm. la nga bëgg donc am mm. alaakul yàlla le trois août moom képp koo xam ne tar nga ko rek mm. tar nga mboon mu réy fii ci buntu kër gi lañ koy defee fii ci buntu kër gi lañ koy defee incha buur ñun dawuñ làqatuwuñ déedéet fii rek waaw waaw bu soobee yàlla fii rek la jaam yàlla yi day jëriñoo guddi a bëccëg macha allah. gaa yaa ngi ñëw man ni xorong ndong buy bu topp yoon. Mm-hmm. bu soobee yàlla képp ku ñëw da nga jëriñu. bu soobee yàlla képp ku ñëw dara jariñu kon mu ngi noonu le trois août. Cheikh Thierno Dieng borom Kënzul Kiwiaaw xam ngeen këram yéen ñi ko xamul police yu unité quinze bi kon bi mu jàkkaarlool nee naa xam li ngay def ak wóol li ngay dafa tax nga ñëw ba jàkkaarloog police bi ne fii laa dëkk <laughs> loolu. attention gaa yi nañu bàyyi loolu xel tey gaa làqatu ci cité yi bu njëkkee tey mar si tey fële waaye kii daa ñëw ba jàkkaarloog police bi ne gaa ji maa ngi fii comme aaju ñëwal loo fi diglante ak ñun bu soobee dinañ ko def kon gars yi ñu di leen jox dig laje incha allah ba beneen yoon